sa dund gi yëpp mënta mel ne lool li lool li mooy sason bi gën a neex ci at mi mu ne nag bul defee ne sa dund gi yëpp noonu lay mel déedéet ñeenti sason yi dana ñuy dem ak dikk ci yow maanaam dana ñuy jaabante ci yow bii di fi ñëw di fi jóge beneen di fi ñëw euh, nee na léeg-léeg tàngooru metti dina la xeeñ ji ci nga koy xamee ci ay bëgg-bëgg yu sottiwut ay yaakaar yu tas ak yu ni dem léeg nga mel ne ku far sedd ba consolé ndax wéetaay loolu it daf lay jox misaalum euh, chita mu heure sedd bu dee bële nga xam daf lay xënj ak tàngoor moo lay jox misaalum noor mu ya sayfu waaye léeg-léeg it say rêve yoo xam ne loo doon gént la loo doon xalaat ne di nga ko war a mën a am loo doon wut la say mébét la woon mu jékki-jékki mel ne day wadd benn par benn te doo ko mën a réaliser loolu di la jox misaalum nawet ak xobi garab yi nga xam ne dañuy wadd su fekkee nawet baa ngi dem bay bëgg a jate yii nii moo lay wan ne saison bu nekkoon danga ci jaar waaye mu ne la danga delluwaat ci noor su dund gi tóor yeneen tóor yu bees jebbiwaat yeneen xob yu bees meññaat yeneen meññat yu bees lii nag kenn ku ne ci sa dund mën nga wax ne da ci jaar wala boo ci jaaragul am na ci foofu def lay xaar am ci foofu jàll nga ko am nañu mën a am sens xaj na it bañ cee jaar benn yoon waaye néew na ñu ëpp ci doomu aadama yi benn saison bu ci ne mos nañ ko ba agsi fiiñu ñu agsi moo tax nanu yàlla dimbalee fuñ tolloo ci metti metti bi mu suturaal ñu may ñu xolli muñ ba duñu saalit mukk waaye buñ tolloo ci diggante bi nga xam ne moo xaw a tane neex na yàlla may ñu ak dëgër ba tax duñu bew xanaa rek sante ko boroon bi tabaaraka wa taala loolu lañu xikma bi loon tey ñuy bañ a fàtte nag benn yoon di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñooñam ak saxaabaam ñuy sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamu aleykum wa